salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alaaji Cheikh Sarr noo yow alaaji nank yokku ah yow rafle rek rafle ah yow kay moom fekkee da ngaa tëddeeg rafle moom boo yow yow rafle waaye nag après nag boo sangoo bu nuppi nag mm. ah ngay solu nag comme yow bi nga ma laaj moom yow bi laa fi wax <laughs> non man ma boobu de <laughs> <laughs> yeewu naa ci jàmm alhamdulilah. yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi alayhi salaamullah. di gën a bëgg Yeesu Krista. macha doomu Mar Mariama xel mu sell mi. Mm-hmm. gërëm mooy jur bu baax kilifa diine ak yu aada yëpp nag. Mm-hmm. ñaan jàmm yàlla def ko ci réew mi. Mm-hmm. ñu noonu yàlla sagal nu suturaal nu. amiin yaa rabbal aalamiin. li gën a jafe ci bi léegi mooy sutura. yal na yàlla defal nu ko. amiin yaa rabbal aalamiin yow nag noo waa sant yàlla sant yàlla xëy rek euh, ñu ñu ñu yan ma ñu yan ma mi. waaw tës bi kay moom mi ngi nii fan yii moom ñaari fan yii moom. waaw. alaaji alaaji alaaji Ahmed Aidara kenn gisu ko. waaw moom xam naa yitte yeeg euh, <coughs> waajal installation beeg. Euh, waaw loolu farata la. waaw yooyu moom. El Hadj Mamadou Mansour Diop moom kenn gisu ko. démb woo naa ko téléphone muy jokko. Mm-hmm. wala mm-hmm. boo gi dañ koy woo te jëlul ma koy woo muy ñu naan euh, orange naan ma day jokko. waaw léegi-léegi nag loolu la ñuy def de. yooyu eh, la ñu war a ba nag. Mm-hmm. loolu dañ ko rëwutal pexe. loolu nga tëj réew mi. waaw. nit eh. ki kay ko nit ki dañ koy woo. waaw décroché wut. yow kay bu bu ko keneen dee woo koy defal teen teen teen rek coupé. ah waaye naan ko ki ngay woo mi ngi jokko. mi ngi jokko keneen après boo insisté mu ne la woo man de waxuma kenn. moo jaxase kër yëpp. ak ak ak tamit am na beneen. ndaw soosu seytaane la. <laughs> <laughs> ki ngay woo mu ngi jokkoo keneen. ndaw soosu. <laughs> ndekete yow tas këru jàmbur. <laughs> wallaay wallaay. bay bu ngeen wax. bu ko defee nag ñu naan la yow koroon u koroon. waxal koroon jokkoon te fekk yow jokkoo kenn. yéeme na de ndaw soosu moom. mu ngi tas kër kër kër jàmbur yi. waaw kooku ba duñ ko plainte. ah ah bañ ndax mi ngi wax lu dul dëgg. mi ngi wax lu dëgg di. te te léeg-léeg aussi. nga soxla Cheikh Sarr soxla bu urgent SMS ko. Mhm. Mhm. huit heures. Mhm. Cheikh Sarr suba si huit heures la koy jot. la koy jot. léegi nag yow nga naan waaw Cheikh Sarr mii dama ko envoyé sa message mais xam nga. faale ma dafa lii dafa nii alors que. Cheikh Sarr yëgul te yëg jotu ko sax. du ko du ko jot wala boog ay vingt quatre heures après nga ko. man des fois ma animé ba wàcc ñibbi sama kër. xaaju guddi noonu. Mm-hmm. ma jot ay nit naan ma nii ak nii ak naa <laughs> leen man wàcc naa bu yàgg. mais dañ naan ma message bi envoyé naa la ko ba ngay animé laa la ko mm-hmm, envoyé. Mm-hmm. donc loolu day faral di am. waaye daal li ñu gën a mën a lijjanti daal mooy ndaw soo see waaw ndaw soo see nga xam ni. nit da lay woo téléphone nii nii nii muy sonné maanaam. yow yow goo kooku. mais keneen di la waat suuf. ndaw soosu naan la ki woo mi ngi jokkoo keneen. <laughs> ndaw soosu mi ngi tas kër yi. <laughs> wallaay wallaay <laughs> daal ah léeg-léeg moom nga woote ñu ne la mu ngi jokkoo keneen de boo boo ko jotaat naan nga eh, ko ko doon waxal yow. dëgg la. waaw muy muy kii te te bu waxee doo ko nga naan ko non man woote ñu lay tuer en communication. nga loolu tamit koy doon war loolu tamit euh, loolu tamit yéeme na. moom kay mi ngi noonu rek. mais. Euh, tey moom alxamis. Uh-huh. Euh, sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di euh, nuyu ak ziar ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu euh, saa su ne xam nga heure bi mooy heure bu baax bi. waaw test de moom wax dëgg yàlla. gars yi ñuy teewlu ci woto yi ci tata yi ci njaganjaay yi ci kar rapide leen nuyu di leen ziar. di ñaanal euh, ba sub jàmm ak salaam. amiin yaa rabbal alamin tey nag moom xam naa ni ci kanam ñu dugg ci ci ci yëf yi xam naa ni comme ni koy faral déggee fii rek ay mbuxam ki arnaque ak yu ñuy demee daal. yooyu daal bëri na ci réew mi Cheikh Sarr Cheikh Sarr man daal léegi daal yéemu naa. ah jar naa yéemu nag jamono dëkk bi moom. <laughs> dëkk bi léegi moom comme. ki njëkk yow dootu la sàgg da gën a muri. nga ni. xam nga bu njëkk dañ naan. ki la ki la njëkk gën a kii ki la njëkk yow. waaw moo la war a muural sa sa sa sa say cër. waaw. léegi gars yi dañuy muri la. gën a xaawi sa muri la de. yóbbaale mi. maa ki la njëkk yow war naa la mën a sàngal say cër. gars yi léegi bu muri de. ah na léegi muri ba nga def yaramu neen. yéeme na tuwaar fakal kii Idrissa Kamala tudd. Mhm. Euh, dafa réer la léegi léegi dafa bàyyi ci euh, benn taxi. da mhm. ci bàyyi porte-monnaie mhm. waaw taxi bi mi ngi ko jëlee Kër Mbay Fall wàccee ko Caaroy Tali Jàllo waaw ca biir euh, porte-monnaie ba nag am na carte d'identité ci turu Idrissa Kama. ak ay carte gab ak tuuti xaalis bëriwul nag nee na. donc muy ñaan bu fekkente ni si nit forna ko wala taximan bi gis na ko. Hmm. kalpe bu def carte d'identité Idrissa Kama na ko woo ci 77 743 64 71 77 743 64 71 mi ngi noonu. ma ngoog kon euh, fii de moom xam naa ne lu fi lu fi lu fi lu fi jaar euh, siiw nii xorom. ah démb rek rek am na xale bu ñu xale bu ñu yónnee woon. Mhm. ne dafa réer dañ ko annoncé mu feeñ xam nga dafa am yoo xam ni. Mhm. day doon étiquette boo xam ne moom lañ la koy takkal. Mhm. te loolu dafa yàgg ci D-Média. D-Média noonu la ubbee muy Zik lu réer fi lay feeñe waaye lu réer it fii lañ koy yëgle. wallaay wallaay. kon day toog naag doom ay mm. at gisante mm-hmm. mu jaar ci tes bii nday ja gis doom ja. wallaay wallaay. donc loolu yàgg na ci deeme ja. Mm-hmm. bañ nan ko bu du réer fi lañ koy indi taximaane lu réer fi lañ koy indi. wallaay wallaay ku réer leen fii ngay ñëw. Mm-hmm. moo tax lu ñu fa annoncé suñu borom def ci taw feex mu feeñ. waaw loolu moom. macha allah loolu moom tabaar fa kàll daal étiquette la boo xam ne euh, topp nañu. di ñaan yàlla rek euh, yàlla di def sutura. Ah. ba lépp ñu fi jàllale rek euh, yéene bi ci seeni boroom am ñu ñu am ko fi. ak euh, ñaan. sutura ak jërë ñaan. sutura Sibar Diop foo toll ci sa projet bi yow. ani ko foo toll ci sa projet bi nga nekkoon. ah le procès. waaye ah. wax ci Sibar. ah Sibar taay moom boo waxee waxi ñaareel ñetteel ñeenteel dënn bi rëcc. waaw. mu mel na moom ah démb ne daa tàng jër. mu mel na moom président Macky Sall da ko di dénk wàllu wujj. <laughs> <laughs> ministre de la polygamie. waaw <laughs> da leen di défendre ba rëkk table. ah tamit daanu ministère bu bees la. waaw. ah ministère boobu moom ah man de xam naa ne. dama yaakaar dama yaakaar dañ ko dénk téegu man moo tax yéen yen ni ngeen di wax naan ay simeer sa jarbaat laag yooyu noonu. Hmm. <laughs> c'est sama jarbaat sama ex sa jarbaat la. <laughs> ah pour muy leer rek. waaw yéen lu dox seen diggante. déet simeer kat xam nga day am day xam nga xam nga euh, nee na nijaay. <laughs> xam nga mi ngi noonu. xam nga kii jarbaat yow mal xiyam. <laughs> bu yàlla dee àtte doo ko tal. wallaay <laughs> boo xam ne mën na laa tuumaal lu nekk. waaw <laughs> saa yow gis nga fi ñu nii yow dèjà rek tontu na ma bokk am na jarbaat day neexal lijjanti. nee na nijaay mooy nijaay. Mhm. mooy. nijaay. ni. nijaay mooy ni yaay nijaay comme mooy comme en <coughs> mhm. waaw ni jaay mooy ni yaay. foo taxawee taxawaayu yaay. Mhm. ndax moog yaay ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. mbaa ñu bokk baay. nijaay dafa foor de. waaw loolu lay lu yéeme la moom. Ah, léegi nag yow sa nijaay bu fekkee chaque jour ñëwoo ko ji mbir. Mhm. mbaa chaque jour sa nijaay gis mbir. ah sa nijaay nag boo amee fayda day daw. ah simeer xol bi day toxu. <laughs> mais te moom il il nag de. waaw ah, moom laa lay wax yow bàyyil noonu rek xam nga nee naa la. Mhm. Eh, sama benn euh, tonton daan na wax mhm. xale. Mhm. bu ñu kontaanee wax bu ñu meree wax. <laughs> bu ñu kontaanee wax wax bu ñu wax. te situation bu nekk ak la ñuy wax. <laughs> dépend rek ci li mais xam nga man. man xam naa li ma génnee ci ci ci ci fonction man xam naa bu li ma ci génne. <laughs> nijaaya naa bi waaw. non non Chimère Chimère nag <laughs> ah, damaa ñëw ni ko nii mu ne ma nii wuy ma man ngay tester rek. <laughs> man da ngay testé loo. te te xol bi oyof. <laughs> Siber Siber Siber xol bi oyof. te ku ñëw ci kër gi. Oumou eh. Sow ñëwee mun na ko yow la. Queen Biz bu ñëwee mun na ko yow la. Ngoyre Ndiaye Géwal bu ñëwee mun na ko yow la. ah titi bu ñëwee mun na ko yow la titi moom bi fi titi ñëwee keroog. Siber mhm. daa xabtul lu mu gis may ko. bagage yi jàmbur yëpp lu mu jël nit am maa la ko <laughs> di maye ba may ay tusi jàmbur. <laughs> ah si meer. xam nga ngay maye ba jël. ba jël nit nit ki alal ju moom. alal may ko waaw. <laughs> nit ki war naa taxaw ni kii àndut ak saalit na kay. ah yow tolloon <laughs> eh? kooku saalit na. di yee ba bëggee yàqu bukki. wallaay wallaay. gën gi dëkk. ci <laughs> di waral gën gi dëkk gën gi dëkk waaw gën gi dëkk de. wax bu wax bu wax la de. Hmm. Ah, di nuyu bu baax a baax Chérif am ca Kër masaar mi ñuy teewlu. Chérif waaw Chérif Thiam xam naa mu turandoowu Chérif Thiam bi ci euh, Sen TV la. bëgg lekk waaye Thiamène ah. Thiamène di pour ñoom. Hmm. mooy booy bi nekkoon ci Idi. ah ok dëgg wax nga dëgg. bi nekkoon ci Idi. ah yow de nga ne Thiamène yi. Euh, ñoom pour ñoom lekk. Hmm. ak naan rek lañu yàlla indee ci àdduna. ah caameen yi. ñi sant Thiam. caameen yi saare nee ngi koy def de. ñi sant Sow. Hmm. ak ñi sant Dieye. waaw. ak ñi sant Taal naam samay sëriñ lañu. <laughs> Taal Taal. waaw ñi sant Thiam it samay sëriñ lañu. waaye hmm. ñoom pour ñoom. Hmm. daal adduna bi daal lekk lañ fi yàlla indee. te fekk na adduna bi jaamu yàlla fi lañ fi yàlla indee. dañoo jiital lekk. maa ma lay nettali benn histoire boo xam ni. vrai vrai vrai vrai la du lu kii de. Mhm. colonel Cheikh Sarr Thiam. waaw. mi nekkoon ci camp bi bii. Mhm. colonel. colonel waaw. baayu El mhm. daa mos liggéey ba wàcc. taayal la téléphone xew. téléphone portable. mooy bi daan jël euh, kii pis bu pis bu bi. <coughs> jamono bi puce di jar ay vingt deux waaw puce bi puce yu ngand yooyu. waaw di daan bind hello. Ah. boobu la téléphone yees. Mhm. colonel Cheikh Sarr Thiam boo mi ngi ci campénal bi mhm. ma lay wax ju caamee nii rek. Mhm. mu liggéey jóge bureau am xam naa xiif bi dab ko nag. xam mooy ñooñ caameen yooyu xam ne dañu bëgg a mu dugg ci waañ bi. doon xool fu togg gi toll. far ibbi cin bi léegi mu ibbee cin bi. Mhm. sëgg doon am lu mu ci doon seppi. <laughs> téléphone bi ci dënn la nekk ndeke téléphone bi dugal na ci cin bi. xam nga ci cin muy baax. kaay ma wax la benn affaire xam nga xam nga waañ boo ci duggee war fa jël loo xane yi jëlloowuñ doo nekk xam nga ibbi cin. waaw yomb na mais tëj bee jafe. waaw danañ kelek ne <laughs> surtout bu tàngee. donc cin ubbi cin yomb na torop mm. mais tëj koo jafe tëj bi nag mm. ça dépend da koy diri wala da ngay yoot waaye il faut mu am karang mm. ah man ibbi cin laa woon <laughs> yow <laughs> ah kon caamee ni <laughs> réplique ko fii ko fi bul cin fii wax nga de dugg sa waañu yaay waaw sàcc ci ceeb ju nu tey waaw def sa waaju yaay def ko ci yére. sàcc sàcc firir. def ko def ko ci t bi. waaw. <laughs> mooy kii ceeb ñu suusal. dugg sa waaju yaay. <laughs> Hmm. sàcc puloox maanaam ñambi. waaw nga dëgg de. xam nga jigéen ñi bu ñu bu balaa ñuy balaa ñuy sóor dañuy sepp. Mm-hmm. bu nu seppee teg. seppi googu nag dañ koy amal heure xam bu njëkk añ añ midi. Mm-hmm. la daan ceeb bi daan tege. waaw midi pile bool keng. salim to loolu la ñu xaw midi keng bool. xaw ma nu ñu midi keng bool keng. midi kenn bool jamonoy Salim Tool. mi ngi noonu. <coughs> colonel Cheikh Sarr Thiam daal. Mhm. bi mu sëggee noonu ba ibbi ñoom Kader ñu ngi may déglu. Mhm. <coughs> ay doomam. Mhm. Abdou Karim Métti sama xarit bi maa lay nuyu faatu taal ak bi mu sëggee noonu ibbi cin li ndekete téléphone portable bi def ci dënn bi dugg téléphone bi dugg na ci cin li te yëgut waaw mu tëjaat. caay yàlla. ñëwaat toog nag ci keppaar gi nag. taxawee buntu këram amoon na benn garab guy féex gu fa nekkoon colonel Cheikh Sarr Thiam dem toog foofu di féexlu mu dem dem dem ba xel wi ne ci téléphone mu laam pose dënn fi gisul téléphone bi jóg indi attroupement boo xam ne colonel bu mel. waaw waaw indi attroupement ci kër gi sama portable. diw yéen a ko jël yéen heure ma sama téléphone ngeen daa xam taay téléphone comme jama moom bëriwuloon ay puce rek puce rek njëgu téléphone mais ñuy wër téléphone bi di wër téléphone bi di wër téléphone bi di wër téléphone bi kenn mënut a gis téléphone ñu ñëw ci oto yi xool gisuñ mhm. yëkkati fauteuil yi lu nekk gisuñ ndeysaan ñu ne ko mais est-ce que téléphone bàyyoo ko sa bureau colonel Cheikh Sarr Thiam ne man bi may dugg ci kër gi maa ngi sama téléphone maa ngi sama téléphone mu yéen wax wax ci naa daj ba coupé <laughs> colonel di bëgg toj kër gi <laughs> moo colonel. gars yi naan waaw mooy colonel Cheikh colonel tey moom tàng di mais daal boo waxtu euh, ay ay ay onze heures jot ñu war a dem séddale ci euh, kii bi. Mhm. Euh, añ bi añ bi. bi bi muy séddale. ci lañ génnee portable ci biir ceeb bi. <laughs> léegi colonel lu war a wax. <laughs> léegi nag colonel mooy kan ma dugg ci waaj ba. explication. <laughs> ñu ko nag colonel xam nga yàlla yóbbu gars te yow la yóbbu toogal. <laughs> téléphone bi nee na nga joxoo ko kenn ba ba ngay dugg ci kër gi ba bi ngay génnaat joxoo ko kenn kon téléphone bi lu ko dugal ci waañ bi ba pare nag dugal ko ci biir cin li cin li caw loolu nekk ci biir campénal bi ah moo colonel ah gars yi ne ko colonel Cheikh Sarr Thiam loolu nag lijjanti <laughs> moo taxit caamee ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, réagir loolu moom uh-huh. loolu moom lu ma teewee la loo xam ne <laughs> histoire vraie la boo xam ni boo xam ni kii wutulu ma ko caamee ni loolu moom maa ko gis cey caamee ni colonel Cheikh Sarr Thiam bi nekkoon fii. ci campénal. bàyyi El Hadj Malick Thiam. ndeysaan kon loolu. caamee ni def nañ ko lu ma teewee ak yeneen yoo xamante ni si buñ ko toppee. ndeysaan ñoom seen journée du neex. Moussa Thiam bu Lamp Fall euh, TV. Eh, kon yéen fi mu ne nii de mënatoo leen euh, dabu seen seen waa mhm. di nuyu bu baax a baax euh, Tima Mendy ca Kër Massar moom it mi ngi teewlu. Mhm. xam naa. Abdou Karim Metsu. Mhm. borom Dakaru Ndiaye. comme yaay Barthélemy Dias nga xam daa ànd ak moom ànd ak nawle. ndeysaan ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Metsu ñu ngi koy nuyu bu baax baax baax a baax. Mhm, mhm. réew mi dañu bëri ñu ngi dëggal dugg sa waañu yaay. yow mosoo dugg sa yaay. man mii ak ak maa man kay bu tayee ba suusal. waaw ba mu suuf nii ba ma sol sama t-shirt. Uh-huh. <laughs> damay ñëw rek danga ab genre wogg rek def ci t-shirt bi. waaw. man sama poos yi munoo ko woon gis te fekk ko ci peppi ceeb. man moom loo boo tayee. ndeysaan loo gaaw gaaw mu ñëw ñaari poos moom danaa ci def ceeb buñ tay. maa la ko wax. génn ak moom. yàgg naa kaa kii de. maa la wax yàgg naa kaa kii de. ñam <laughs> ñam bi gi ñu seppi. Uh-huh. ak jën yu ñu saaf teg. te te jamono yooyu ñam bi day day ñor ba ba mel ni. dindi deeku. laay boobu pu loolu pu puloox. oh. loolu puloox. macha allah ñam bi rek. Oh, jamono neexoon na. Hmm. jamono la mu naan sax moo tax xale yi nii léegi foowatuñu defatuñu yooyu. ñoom xale yi léegi ñoom man man daal yéem na yéem nañ ma léegi. xale yi nag xale yi nag mënutuñu fo. Hmm. ndax xale yi dañoo amatul espace bu ñu fawee. benn <laughs> hmm. xale yi. espace bi ñu waroon fooyee yëpp gars yi tabax nañ ko. dogo <laughs> dogo doge nañ ko. maa la xale yi ci moom amuñu espace bu nu fooyee. a c'est ça c'est vrai. as ndigg ndiggal su ndaw la soo xam ne dañ fay toog. Mm-hmm. ndigg ndiggal yooyu nag ca la ñuy defee seen yëpp. ca la ñuy defee bii ca la ñuy defee bii. <laughs> boobu moom junj yooyu moom. lu leer laa la xale yi léegi. xale yi dañoo la dàq. ñoo la dàq bii ak bii. yéeme nañ de. maa la wax tey te noo teel a précoce teel a màgg bëgg yëf mag. engrais ji la. waaw wax nga dëgg de. ah lépp dañ ko engrais léegi. wax nga dëgg de. bio bëreetul. bio bëreetul de. léegi bu ñu nee ba nen sax ñu naan nen nen bio daa am. ak nen boo xam ne du bio. waaw yow kay xam nga ni réew mi yàqu na. da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay ji léegi bëgg a góob xam nañ koy xeeti sax. léegi final final xam nga lan moo lan lan moo fi nekk bio. ci liñ fi des lu nekk bio. jën. wax nga dëgg de boobu moom. jën waaw. jën daal mën naa la xamal ni jën moom bio la. bio la na c'est naturel. loo fi gis. am na engrais. wallaay ginaar yi. ginaar bu weer ginaar gu weer. waaw nga bëgg ko lekk nu ko neex. ginaar goo xam ne ñu ko sax fu mu sabe. ah man de <laughs> man de yéemu yéemu na yéemu na <laughs> mayuñu. ginaar gi ginaar yi sax bii amu ci. <laughs> nga dëgg de ginaar gi mayuñu ko weer maanaam ginaar gi sabut newul koko ko. ca yàlla. ginnaaw gi nag xoq lay def beneen xooj mooy koy rey. moo taxit nag boo koy. boo koy xool mooy biñ koy rey loolu gars yi ngay dégg mu ne xooj. dafa am corrélation ak euh, yenn feebar yi ñuy gisi eh. parce que suñu mag yi. waaw dañ daan dem mais buñ la téye man sama papa bi muy bi muy gaañu mais bu la bu da ngay xam ne. Ah, ah, mag ñi force bi mais ñun léegi à quarante ans. saa yi mooy ñun hamburger ñu rey. waaw fast food yeeg yu <laughs> yi togg léegi yàq léegi. xam nga mag ñi dafa am lu daan dundee. Mm. déjà jamono yu mag ñi seen seen seen asamaan pollué wul woon. Mm. Mm. asamaan bu set la ñu amoon. maanaam nokki gi rek boo xam ne waaw. yow fi mu toll nii mag ñi bu njëkk daan nan mën nañ toog juróom benn weer duñ soj. ñun nag weer wi dañ nga ciy soj ñetti yoon. wallaay mbaa ñaari yoon weer wi. saxaar si oto yi. waaw bu njëkk mag ñi seen jamono pollué wul woon. gaz. amul woon ay ay ay ay ay ay ay ay pot échappement. Mhm. amu ci mhm. woon. donc doon doon dund ci environnement bu bu sain. bu sain waaye beneen bi ci teg bi ñu doon jëfandikoo li garab yi di génne. Mhm. ndax nit ki. day jël ci garab gi. garab gi di jël ci moom. loolu xam da nga ko jàng primaire. da ngay joxe CO2. mooy li ngay li ngay booy nooy liy génn. moom moom la garab gi bi soxla. moom bi mu lay jox mooy O2 moom nga moom ngay nokki. voilà loolu nag science développé na ko ba mu gën a yaatu. Hmm. tey boo feebaree am na lu bari loo xam ne danga daan dem rek dagg. Hmm. ñëw daal di faju hmm. li tax mag ñi daan garder seen i bëñ. ba cent ans da nga daan gis mag moo xam ne cent ans. bëñ bi du bënn du daanu. te du wadd te du yàlla. day dëgër këj. loo ko jox mu lekk cent ans nga am bëñ trente deux mat. yow fi mu toll nii xam naa ne yaa ngi ci cinq yoo wekk. man waaw wax nga dëgg de man mii xam naa ne maa ngi ci trente deux maa ngi ci yu ma wekk <laughs> ñi ñuy déglu am na ñoo xam ne trente deux yëpp dinañ. wallaay wallaay wallaay. wallaay yaa ngi dégg. donc yooyu yooyu. mag ñi dañ doon def ne. Mhm. daan euh, farataloon nañ socc. socc. waaw. Mhm. moo xam soccu ngaw. soccu ngaw. waaw. soccu ngaw. waaw boobu day rëcc na ma. soccu werek. Euh, soccu guro. Mhm. ak soccu nu mu tuddati euh, soccu soccu yi daal bëri na. Mhm. te yooyu yëpp dafa am lu muy def ci bëñ. Mhm. benn dina faj sam ciiñ. dana dëgëral sa bëñ. matt gi koy mat dana dëgëral sa bëñ. dina gën a dugalaat say bëñ. waaye tamit dana gindi xetu gémmiñ gi. bëri na socc yu bëri sax. waaw loolu moom. loolu léegi xale yi ko ci kenn woogootu ci. wallaay bu njëkk njamal tiñ mag njamal tiñ. Mhm. mag ñi fonkoon nañ ko. mooy jamu. waa njamal tiñ. mooy njamal tiñ. te yàlla dinaa jàng dafa am njamal tuñ. ak mhm. njamal tiñ. Mhm. tuñ mooy lii. li ci kaw lèvre tiñ mooy lii lu xonk lii. te ba gis moom mooy moom mooy njamal njamal. Euh, njamal tiñ. tiñ loolu mag ñi dañ ko def di génnee deret du dee ji. ok góor ñi dañ daan def njamal ci jigéen ñi dañ ko doon def. Mhm. des fois nga gis jigéen ñoo xam ne buñ la reetaanoon tar fa kàll seen ciñ bi daan mel na xiinu wax ndax ñuulaay bu rafet. wallaay wallaay. bañ a tàll xam nga lu ñuul. Mhm. lu weex bu ci lu ñuul tegee de de weexaa bi day gën a leer. Mhm. nga dëgg naan fuddanu. vrai fuddan. léeg nga dégg mag ñi daan wax ne cam sama jongo ma bu la talee la loxo rek loo yor jox xam nga fuddan mag ñi dañ naan fuddan seen loxo ba mu rafet boo ne alaaji nii alaaji soxla woon naa nangam talal ko loxo yi loxo yaay tàkk allahu akbar ci ci ci ci ci ma set wecc ne weret ne mel wax set mm-hmm. ciñ ma ñuul ah toor fa kàll yooyu amatut nu muy amatee tubaab bi ñëw na dugg suñu biir waaw ñuy jëwanti suñu biir du ñu yàq naan lii baaxut ak lee baaxul te mag ñi jëfandikoo ba toll nañ toll. yéeme na de. dañ da wuti euh, salaan. Mhm. xam na ma ñoo boo ko laalul jooy. waaw man dañ daan dem wuti salaan salaan cari mhm. salaan. waaw dañ daan ko daggee. Mhm. ñëw ruur ko ci ruur ko ci taal bi ba ba mu tàng jër jër jër salaan bi ñu koy ñànk di bàyyi. tàngoor woowu mooy dugg sa bëñ yi di di di demewaat bëñ yi bëñ di gën a dugg. di gën a dëgër. yàlla maanaam ñun am na lépp. lépp mais ñun ñu daal ñoo ñoo fonkul li ñu am. fonkul li ñu am te mag ñi ñeme woon nañu lu weex ñun nag duñ doom dañoo bëgg suukar. wallaay wallaay ñun bu saful suukar duñ ko de. wallaay mag ñi daan naan naan ataaya waaye dafa am nu ko daan doxale mm-hmm. mag ñi bu ñu yeewoo li nga daan njëkk def da nga daan xooj sax ree reenug senjañ. senjañ waaw wax na de. xat mën naa kaa <laughs> mën ah. naa kaa jéngu waaye. loolu mooy déparasite bi gën a ga waaw reenu sañ nañ la mag ñi daan ndékkee. Mm-hmm. buñ ko naane ba ba may ko trente minutes ba ba bo ba di bactéries ñoom seen jaxasoo. wallaay ba doog a ndékki. wallaay wallaay. loolu daan sa laax bu bu baax. wallaay wallaay. fi ba. Mm-hmm. reenu sañ nañ. reenu sañ nañ. xasum looro. Uh-huh. ak xasum wéen. Mm-hmm. <laughs> xasum ween. waaw loolu moom bi may nekk xale moom daanaa ko daanaa ko dégg. war fa kàll. Hmm. foo nu xam naa ñu jéem a dugg ci tes mi. tes bi waaw. Hmm. tey nag moom xam naa ne jaar na fi jaarate fi mais bi moom dafa dafa yéeme. Hmm. ndax kii daal euh, wenn euh, soxna la woo xam ne. <clears throat> xam naa ne daal euh, dadoon def diggante Paris ak Dakar nekkoon na France lu yàgg amoon kër ci diwaanu pikin euh, doon ko loué benn université privée ma daan fay ñu dem ba ca biir coow am daal ci fayeeku beeg euh, gars yi amel ko bor bu bu xaw a takku. maire bi maire bi si boppam. Mm-hmm. léegi bi loolu amee euh, mu jàppanteeg ñi mu lee woon ba mbir yi mujjee ca yoon bi mu demee ca yoon nag yoon def ci liggéeyam boo demee yoon da ngay jël avocat. Mm-hmm. waaw léegi nag daal euh, bi mbir yi demee ba gars yi do génnee dogal atte bi. Mm-hmm. ñu war di fay maire bi léegi juróomi million par weer. juróomi million. par weer par weer. ci pour pour pour. pour pour delloo ko xaalisam. nee na moom daal encaissé na weer encaissé waat. encaissé waat parce que dafa joxe woon numéro compte am. lu mais daal mu toog ba ay jëmmi jamono ay weer rek. moom daal jotatul benn notification dara dugatul ci compte am ndekete ci li mu wax ci diggante bi avocat bi mu jëloon am na kayit bi mu ko signalé signalé woon mais moom prêté si attention ci ni mu wax. donc ci kayit boobu noonu c'est comme si moom dafa wax ne léegi nañ koy virer ci compte avocat bi. léegi daal. naan ko da nga waxtaan ak man ci suuf balaa ngay teg test bi. ah. xam nga avocat avocat yi dama cee bokk de. Hmm. waa léegi xam ni ñuy def. Hmm. dañuy teewlu maire bi teewlu ko ak xel. bu baax a baax. door avocat la avocat. <laughs> ah déedéet. kaa la nag man avocat yi nag wax. kaa de du du avocat de. non avocat yi moom. ah moom de moom de avocat la wax. loolu moom nañ ci teey. waaw léegi daal samay xarit lañ de. Hmm. yee. en tout cas daal. Ah. léegi tey ñu ko teewlu. ah kay ko ba teelu moom dañu lii dégg lépp ci suuf ndax man nag man nag wax dëgg yàlla avocat dama bokk. Hmm. yee dama bokk. léegi nañu teewlu ak euh, ak euh, attention. Mm-hmm. bu ko defee ñu cerner li mu wax après ñu ñu dellusiwaat Chimère mun nga ma jox euh, premier élément bi. yaay booy luy sa problème. man daal suma problème mooy. dañ la arnaqué. man daal maa ngi ak euh, maître def naa lu ne pour ma mun a am xaalis impossible. d' accord dañu dañu dañu jël sa xaalis yow. dañu jël suma xaalis. lu toll si ñaata. xaalis bi dix neuf million dix mille benn bi. dix neuf millions. ok beneen bi mooy mooy bu université bi. beneen bi. beneen bi on m'avait dit c'était 77 millions ou 70 million en tout cas. léegi au lép total ñaata la. benn bi 70 million bi bokkul ak beneen bi de beneen bi affaire kër la mais beneen bi affaire auto la bu 70 millions yi. kooku fay nañu ko xaalis. d'accord léegi ñoom mu ne léegi dañuy ñëw par par par par ñaari ñaari cas yi la fi indi. ñetti cas ñetti cas nga am. waaw ñetti cas yu nekk dañ la dañ la dañ la dañ jël sa dañ la njublang sa xaalis. waaw ok premier cas bi lan la. premier cas bi mooy affaire kër gi. jugé nañ ko. dem nañ affaire kër gi non balaa ñu koy jugé naka la demee. affaire kër gi dañ dañ ma doon fay eh, université moo nekkoon kër gi. université dañu doon fay mais léegi-léegi du ñu fay. danga amoon sa kër ñu def ci ay étudiants. waaw war na ma fay te fay ñu ma. ñan ñoo la waroon fay mooy mairie bi moo la waroon fay. mairie bi. di ma fay mais dañu doon doon fay léegi-léegi su ma déplacé dañu fay benn benn kii ku tudd mu ngi mairie bi foofu. moom moom sax moo ma dimbal lu bare bare bare wax dëgg yàlla. léegi ñu di ma fay. a ma grande surprise comme du du nangutuñu fay woon arrêté nañu fay bi ndax ñu ko kii foofu ne ne demuñu boo duñ ma fay. ça faisait vingt sept millions et quelques. bon comme ça faisait ça alors donc j' étais obligé ma dem ci avocat bi pour mu ñaan ma ñaan ko su fekkee mun na ma dimbal fay ma eh, ñu fay ma mu ne ma bindel ko eh, ma signé ko ay feuille blanche feuille blanche yooyu signé naa ko pour mu defar démarche donc. Eh, mairie avant am dafa doon fay suma compte am nañ suma numéro compte am na yëpp sauf que moom dafa bind lettre comme quoi que bu ñu commencé fay bu ñu ma waxee mu ne léegi d' accord nañu mais dañ may fay par cinq millions cinq millions tous les mois ma ne ko d' accord l' essentiel ñu fay ma rek bu ñu fay une fois deux fois mu de dix neuf millions dix mille ci la bindee moom lettre boobu bi ci ci kii yi ma signé woon envoyé ko comme quoi man maa wax. ñu dugal dérogation comme quoi que ne yow yaa wax. ñu jël xaalis bi di ko dugal moom ci compte am. voilà pour ñu dugal compte am ci directement. te ñoom xam nañu xaalis bi ci sama compte la mu mus nekk. dégg nga ma ma yàgg gisuma benn versement gisuma benn versement. ma téléphoné ko ma ne ko maître léegi affaire xaalis bi lu mu demee parce que man kenn eh, mairie fayul ma. mu ne ah mairie fayul dara. ma ne ko ah ma ne ko waaw. ma téléphoné mairie mu ne non madame Sidibé fay nañ sa xaalis yëpp fay nañ ko yëpp. d' léegi kooku bi nga demee ba découvrir loolu dan ko yóbbu police. de bu bu ma demee boo découvrir loolu. ci laa ko téléphone ma ne ko maître wax nañ ma mu ne xaalis bi fay na ci mu ngi ci sa compte mu ne ah, ah peut être oui ma ne ko mais ñaata lañ la fay mu ne ah je ne sais pas mais je vais mu xam ma ko mais dinaa la waxaat ma ne ko d' accord ma yàgg ak jeguma dara. ci laa ko porté plainte devant le tribunal Macky Sall ñu ngi fait depuis deux mille onze tey maa ngi dem di génne di dugg di génne impossible ñu fey ma après mu ne léegi moom jël na ko comme honoraire te man fey na honoraire am yëpp ba mu jeex d'accord léegi bi nga xamee ne da nga da nga ko porté plainte au niveau du tribunal convoqué nañ leen ba juge bi délibéré na wala délibéré wu ah juge bi délibéré na atte na leen yéen ñaar délivré nañu mais saa yoo ma demandé pour ñu jox ma grâce du jugement du ñu nangu jox ma mu ne ma ñëw jël eh, lu mu tudd eh, li ma desel trois millions ma ne ko mais comment dix-neuf millions mu ne waaw moom jël na deset bi comme honoraire ñu dem tribunal bàyyi bien bàyyi bien ma jëlaat beneen avocat ma ne ko léegi je vous dégage du dossier léegi dindi naa dossier bi sa loxo bugutuma nga lal benn dossier dossier yi nga yore yëpp bugu nan nga bàyyi yëpp ma bindee ko avec acc de réception ma bindewaat euh, euh, kii lu mu tudd eh, bâtonnier bi par un avocat de France que j'ai écrit par un avocat de France moo ko moo moo leen envoyé lettre boobu bu ñu ko envoyé mu ne waaw dégg nañ ko ma ne ko non maintenant laissez mon dossier dinaa jël beneen avocat à ma grande surprise bu ma commencé jël beneen avocat avocat boobu mu ne ah xam nga la affaire bi dem naa eh, ci cassation ak yooyu ma ne ko mais comment wax naa maître bu bu bu ci duggoot ci benn affaire léegi lu tax mu demaat mu a ah maître daal ah, ma ne ko non na ci génne ma bindee waat encore mais taxul ñu bàyyi dañu précipité rek. d'accord yaay booy pour ñu pour ñu dem bu gaaw léegi maanaam foofu kooku fan nga mujjee ak moom instant bii nii. fu mu ne nii mu ne amatuma dara budul deux millions et quelque. am ma 3 millions. ci 19 millions. waaw ci 19 millions 10 mille yi am ma dara bu dul 3 millions et quelque. moom moo la ko wax wala tribunal bi. moom ci boppam wax na ma tribunal tam loolu la mu bindee comme ka loolu laa yore mu ne léegi eh, eh, tribunal bu mujj bi sax mu ne ñoom ils sont plus compétents ils vont envoyer au euh, bâtonnier or que bâtonnier bi de de leen bu yàgg. ok yow léegi ci dossier boobu da nga jàpp yoon deful liggéeyam. defuñu liggéey parce que luñ ma war a joxe joxuñu ma. d'accord léegi eh, ça des années. ay ay plus de combien de depuis 2011 ba tey. d' accord ah d' accord léegi nag bu ñu ñëwaatee ci beneen cas bi kaawu conteneur bi. boobu kaawu conteneur bi tam wax naa ko na bàyyi suma dossier tranquille il a tous les il a toutes les preuves. léegi boo boo ñëwee bu ñu ñëwee ci kaawu conteneur bi naka la demee danga jëloon say oto yàpp ko ci benn conteneur quarante pieds mu jógee France pour ñëw. Sénégal pour dem Mali ñëw fii Mali. ok léegi nag nañu sàcc affaire yëpp ci biir. naka lañ ko sàccee. ah damaa xam. yow yaboon nga oto yëpp. man dal fay naa. dugal naa oto yi ma fay chaque mètre ça fait trois cent quatre vingt dix euros par mètre dix huit mètres seetal lool ci xaalis sans compter oto bi lu ma ko jëndee bu ñu defee jugement boobu mu ne j'ai plus droit à rien. non non defal ndànk balaa ñuy egsi si bi. yow oto yi yabe nañ ko France. ci conteneur bi mu ñëw ba Sénégal. waaw bi nga demee ba por bi pour génnee ko ci transitaire bi dañoo ubbi conteneur bi fekkuñu ci benn oto. non bu ñu bu bu ma demee ci euh, jour heureusement jour bi ñu génnee conteneur bi maa ngi woon fii ñëw naa fii maa ngi taxaw. fekkee benn pneu bi sax dafa dafa yàqoon ci oto bi mais am na ay ay ay clé yu bare ci bi ak yeneen yeneen ak ordinateur kenn xam. léegi limal ma ana balaa ngay avancé li nekkoon ci oto bi. léegi conteneur bi. yu bare moo nekkoon ci conteneur bi. ah comme lan ak lan comme oto beneen oto bi ma la wax. ak bene oto bu ak oto bu ndaw. benn camion ak benn oto bu ndaw ak lan Peugeot ak lan jeex na. benn camion ak benn oto bu ndaw ak benn Peugeot. non Peugeot bi. mooy oto mu daw bi. waaw eh, beneen camion bi mooy benn bi. ok par ñetti affaire la beneen camion dix tonnes bi n'a rien à voir avec ok donc ça c'est bu mujj bi mooy bii léegi mu mu jël dossier yi suma set bi di ko. envoyé yaa ngi yaa ngi ci yaa ngi ci fi nga nekkee ci bi nga assister pour conteneur bi war a ñu war la libérer sa conteneur bi. buñ ñu ma libéré bu ñu ma bëgg a libéré conteneur bi dama fekk ama amatul pied sax. dara nekku ci biir. donc dara ne même même wuru yi nekk ci suuf amul. dañ ko dindi yëpp conteneur vide lañ la indil. vide. léegi loolu loolu naka la du conteneur mais auto la auto auto bu mag la comme conteneur. d' accord waaw d' accord léegi 40 pieds. voilà léegi nag loolu loolu finalement fan la mujjee. Ah, ci la porté plainte ci la porté plainte ci lañu dem tribunal ñoom mu ne gis suñu benn dossier. léegi j'ai droit que c'est euh, combien j'ai même pas droit à quelque chose dans mu ne léegi jeex na kooku jeex na amatuma dara léegi beneen beneen dix tonnes bi jëkk ñëw kooku la ñu doon jugé soixante dix million soixante dix millions dañu waxoon mu ne du ma am dara. soixante dix millions naka la demee. ah eh, gis ma ko mu ne am ma am am ma droit après bu ma defee appel ci lañ ma wax mu ne comme noonu la dinañ ma jox sept ne dinañ ma jox sept million mu ne ma ñëw jël 7 millions fekke maa ngi France mu ne ma ñëw jël ma ne ko du ma jël 7 millions parce que man xam naa li ma jëndee oto bi 15 secondo bagage yi nekkal la ci biir xam naa boobu bokkul ak conteneur bi boobu bokkul ak beneen boobu bokkul ak keneen ki mhm. boobu moo jëkke ñëw sax a moo moo yore boobu bato bi bato bi fay na xaalis bi ñoom lekk nañ ko fay na xaalis bi 70 millions yi man ah, bu mujj bi léegi dañ ma mujjee joxe 7 million mu ne ma ñëw jël set million ma ne ko du ma jël 7 millions suma xaalis li ma jëndee oto bi kese passé na 7 millions li ma jëndee kii yi passé na 7 millions donc du ma jël sept millions ñetti at mu ngi nii ba ñeenti at ñu ngi may toppo mu ne ma jël xaalis bi mais amul jugement grosse du jugement bi ma ne ko nañ ma jox grosse du jugement bi pour ma xam jugement bi lu mu demee nanguñu ma jox loolu. ma woo avocat bi ma wax ko ma ne ko léegi man li ma bëgg mooy ngeen jox ma jugement bi mu ne moom daal dañ ko wax mu ne am na 7 million ci bureau maître ma ñëw jël ma ne maître désaisir naa ko ci dossier bi comme moom nekkatul ci dossier bi lu tax ma jël xaalis bi ci bureau lu tax ñu koy jox ah, mu ne lu ma ne ko lu tax ñu jox ko sama xaalis di manqué man bind na officiellement avec accusé de tey j'ai toutes les preuves. lu tax lu tax ñu ñu di ko jox xaalis bi encore pour man man ma ñëw ci birom mu wax ma lu ko neexee encore ndax mus na ma harcelé mus na ma harcelé mus na ma yónnee ay góor pour ñu doxaan ma ma bañ. am na ay seede yu wóor loolu yëpp dañu woon fexe pour suñu ma doxane pour ñu mun a ma am eh, eh, lu mu tudd ma mun a apaiser affaire bi comme dañu xam duñ ma mun a jël ci côté boobu ñu bàyyi côté boobu léegi ni ni mu commencé di ma harceler mu ne de façon damay perdre son temps mon temps les trois dossiers je n'aurai rien là-dedans que de que de que que de que des choses et puis si je laisse pas même su ma bàyyul kon affaire xaalis bi dinañ ko dox dinañ ko lekkee suma ginnaaw te yow kooku moom moo nekkoon sa avocat. moo den avant avant moo doon nekk sama aw mais bàyyi naa ko bu yàgg. ok bi problème bi commencé am. ci ko ci ko ci ko wóolootul. wóolootuma ko ko moo tax ma bàyyi ko complètement bu ñu demee tribunal dañu wax mu ne Alioune mu ne moom mu ne. jox nañu xaalis ci benn Oroxia te man Oroxia nekkul ci suma dossier euh, suma suma famille sax enquête nañu enquête nañu gisuñu benn Oroxia mu ne am na xaalis bi ñu versé foofu waaw su fekkee Oroxia versé nañu ci xaalis nañu génne war Oroxia boobu ah soixante-dix millions ma jox suma xaalis. léegi yow kooku da nga ko man dama ko gis xam ma ci dara def nañu enquête ñu am envoyé ay nit suma kër fi fekk maa ngi France def lu ne. mënuñu fexe boo gis urocas boobu mënuñu fexe boo xam xaal bi fu mu dëgg léegi mu ne il ma jël 3 millions rek génne ci ay voilà c'est tout léegi yow li nga fi lim ci ay millions yëpp 3 millions rek lañ la bëgg a jox ah, moom daal benn bi mu ne 7 millions bi mooy eh, auto SAID bi mooy 70 eh, millions yi 7 millions lañ ba bëgg a joxe foofu il veut même encore dafa bëgg a sax dindi ci dara 3 millions yi mooy 19 millions 10 mille yi beneen bi kenn wàññunu ko parce que kooku dina dem cent et quelques millions kooku dossier yëpp dañ ko réer dañ ko dañ ko dugal mais heureusement on a des parce que biñ koy envoyé dañ ko envoyé par SMS ak yooyu. d'accord léegi finalement fi mu nekk nii nii nii nii yow lan nga bëgg. ah instant ni nii nii nii yow lan nga bëgg yow. man li ma bëgg ñu fay ma suma xaalis sonn naa de yàgg na de même dem naa ci un député la fàtte naa gaañu naa fu mu ne nii voilà. Euh, kër googu noonu ba léegi yow mi ngi ci yow. ma kër gi maa ko moom mu ngi si man. mu ngi koy ba léegi yaa ngi koy loué ba léegi. maa koy loué maa ngi koy déedéet loué étudiants yi dem na depuis. sans constat ni rien génne na moom génne na étudiants yi sans sans sans mu wax ma sax dara. bàyyi kër gi déjà délabré kër gi dafa daanoon presque toit bi yëpp dafa daanoon. damaa obligé ñëw dindi toit yëpp ñaari kër bu dend la dindi toit yëpp defaat ko. d'accord léegi fàttali ma xaalis bi lépp lépp lépp lépp sa xaalis bi xaalis bi ñu la arnaqué. xaalis ak li ñu mën a arnaqué daal benn bi dix neuf millions dix mille comme li ma la wax beneen bi soixante dix million la beneen bi ñuy wax mu ne dossier amul ndangam ndangam kooku passé na cent million d' te loolu yëpp sa avocat boobu noonu moom moom kenn la. wax naa ko mu bàyyi suma dossier na ma bàyyi. binde na ko par A plus B. par un avocat un autre avocat de la France. laaj Cheikh Sarr. ñoo ko eh? ko teelu mer mer na de. waaye yaay booy kay wax dëgg yàlla mer na nag. français naa be de. ah mer na de waaye yaay booy yaay booy nen nañ ko booleeg ay nen ko booleeg ak ay nit pour ñu doxaat ko <laughs> pour wàññi pour wàññi dooleem <laughs> yaay booy ndeysaan. waaye yaay nag man man leen rek laa ko bëggoon laaj. Mm. Eh, ana ay doomam ana daal bëggoon naa ko laaj. Mm. parce que am na ci yoo xamante ni si des fois di ci boo nekkee xasee nekk mag ba nekk mag di jëflanteeg tamit ay xale da nga ci boole xale comme ñoom li Seydina Cheikh Ahmed Al Maktoum waxoon xale xale koy yar. Mhm. mais boo dekkee mag nekk ci biir xale yi. Mhm. te xale yi léegi gën laa miin technologie ak ñoom seen. Mhm. mën nañ laa jaar fu nekk. waaye nag wax dëgg yàlla euh, am na yenn jëf yoo xam ne boo koy jëf. ba gis ku tolloog sa yaay wala sa baab war nga koo waaw kon côté gi bi nag vraiment wax na wax na ay naqar di ci jiitu moom mooy jafe-jafe xaalis boobu ñu ko doon fay di ko viré ci beneen compte mhm. loolu mit miti na mhm. leneen li nag mooy conteneur am bi nga xam ne moom it wàcce nañ ko gisu ca projet ba ak camion man de li a jaaxal <laughs> jaaxal gars yi dañoo démonté ba démonté démonté démonté pneu yeeg ah day port bi port bi léeg-léeg bi léeg nge nga dund fi day doy waar de poor bi xanaa gisoo léeg-léeg nga gis ay nit yu chargé seen conteneur ba fii bu ñu ñëwee ibbi ibbi ibbi ibbi conteneur bi duñ ci gis dara. ah wala fekk ñu jaxase lépp. loolu la wax moom. ah na de bokk de. xaw ma ndax ci port bi lay xewee xaw ma ci. Euh, ci yoon wi fi mu naan escale ak yooyu. parce que am na loo xam ne moom boo ko maîtriser wul wala fekkee woo. Hmm. jugé que day xaw a métti. mais daal li gars yi di dund loolu moom bëri na trop trop conteneur bu ñu egg si. Hmm. fekk ñu ubbi ko jënd yenn bagage yi. wala ñu euh, jël la fa nekkoon. wala nga am sa oto ñu wekki pneu yi. Mhm. yooyu yëpp gaa ngi koy dund fii ci port bi xaw ma nag. ndax ci mhm. port bi lay xewe ndax xaw ma avant muy egg Sénégal lay xew loolu leeruma yàlla leer. Mhm. waaye ñi koy dund moom bëri xam naa waa trafic bu fekkee ñu ngi ñu ngi teelu fekkee ne mën nañoo dugg. ci mhm. kanam euh, di wax ne tamit am na deuxième partie ah maire bi ba tey. maire bi waaw am na deuxième partie. mais maire bi tamit nay jiital nay nay bu fekkee am na doom. waaw li nga wax nag lu am solo parce que yenn millions yi. waaw boo demee ba yor ko. Mhm. di jëflante. Mhm. da ngay jël sa doom tamit teg ko ca. loolu da ciy baax. naturellement xam nga nag ay doom nuñ mel ne wax dëgg yàlla. Chimère gars yi dañoo ñu ngi ci biir ku ne. kooku du Serigne Pape Alé Cissé. sa Serigne la xanaa maa ko <laughs> ah yow doo Serigne Cheikh. man doon. ah Cheikh dama taalameloon mais. doon ñàmbe ma ko gënal mais mais man. <laughs> nga ne say ay jigéen lañu. ah ay taalibe. ay taalibe ay taalibe waaw. moom dañuy man nga Pape Alé Cissé sëriñ dànk jeeg jeeg ju tas ji. <laughs> <laughs> non yegg ma tax ci moom wax dëgg yàlla. Ah, musoo ko wax. mais rek la wax. waaw mais ma man man man man man du loolu <laughs> yaakaar ba ma ci appuyé appuyé appuyé nga ñu mën naa jural leneen <laughs> da nga caa génnaat mais Pape loolu yaa ma. kon daal jéeg rek laa la wax jànk jéeg jéeg <laughs> parce que fii fii lañ toog ñu ne waa diw diw ah diw de jéeg la waaye am na jëkkër mu ne noonu ñu am jëkkër moom vraiment bokk na ci ah jéeg ju tas ji lii moom lii moom wax ma dégg. donc yow yaa ko bëgg a wax rek. non léegi xam léegi xam nooy man Zik Feeling il faut ah. ma koy enregistrer di denc. su ma dem enregistrer ngir yàlla. li ma ko dencal. <laughs> waaw ah, waaw yow benn. bu weddee rek nga baar ko. wax na fi maay sëriñu jànq ji ak jeeg ju tas ji. Hmm. ay jàngam ay jàngam min wi lay commencé. waaw ah, loolu moom dégg naa ko. min wi lay commencé min wi lay commencé. Hmm. jeex ay trois heures quatre heures du matin. waaw te góor mu ne ba pare mu ne permettre na leen ñu sol leen neex rawatina nag minimum moom nu mu gën a bëree rek moom gën na koo neex <laughs> waxoo lool. waaw baax ah? waaw waaw loolu moom baax wax moom. dégg am benn maire boo xam ne daa ñëw di jébbalu maire bi mu ñëw di jébbalu maire bi indi ñaari ñaari ay doom yu jigéen <laughs> mu ne Alioune Ndiol maire bi doom yi dañoo mool moo tax ma ni bëri def ko jëwrin fa mu nekk. mais yàqul dara fi ah. mais <laughs> weddiwul de. gis nga xam nga lii lii jamono da cee war wala moom man ah. am na dossier de. moom boo ko waxee tarixa fu mu bokk mu ne tarixa boppam la. ah, ah waaw non ko bopp la de wax ba pare am am na ay riyaala boppam risaala lay wax riyaala. waaye kii tey ñu ko atiyee. kii dañu ko war a jàpp mu naan ma lan kii moom sëriñ même sëriñ yi toogoon wax ni coupe bi du ñëw. waaw dañu war a boole. ah non non bokkul ñooñu nag ñu bay ah. kew. Tambacounda leen leen war a yóbbu. mbaa ñu wutal leen mbaa ñu wutal leen tool yu toll na xel kom ñu fay bay. non ñooñu moom waaye ñooñu moom mënu ma si ñoom dara. ah sëriñ si ñoom dara. bi moo ba am na si koo xam ne. maintenant il fait dans la menace. ah bon naan waaw ñu yor sama vidéo bu ñu ko <laughs> supprimer wul. non non non kooku kooku kooku waxul ci football bi de. ah kooku waxul ci football bi de. ah ok <laughs> ah. papa papa bi dernier penalty bi moom moo moo ñaan mu dugg. moo ko bëgg ma. ah waaw ñaan naa de. dama ne si rek Pape Ali sore wu ñoom ñaar. coalition dëgg de kan ma waxoon Sibar. Sibar Diop waaw. nee na yaa bu ma. Sibar xam na ma. Sibar xam na ma. man xoolal sama baat sama baat yi kenn du ko naatable. xanaa kon de Sibar xanaa nga ko bëgg taalibe yi. non non sëriñ boobu sëriñ boobu. Mm-hmm. sëriñ boobu. Mm-hmm. kooku waxul ci waxul ci football. ci football bi. kooku dafa wax ni. Mm-hmm. élection yi du am. ok. dafa ne élection yii nii du am élection locale yi. da ko wax ba bare xale yi di ko vaar mu ne moom kenn du ko vaar. <laughs> loolu tamit nag métti dina métti. xale yi nag ni ko sëñ bi dañ lay vaar. dina métti nag. <laughs> yaa ne élection yi di am. waaw wéeru ci sa baatin. ah xale yi ne ko nag sëñ bi nag dañ lay vaar de. mu ne ku ma vaar ku ma vaar ma ma jëflante yow saayir ak <laughs> baatin ah fii nag sëñ bi nag gars yi dañ lay vaar de yow daal ne élection yi du am ci sax baatin la <laughs> ko xale yi nag élection yi am na ah. ba ñu xëj commencé fal waaw xale yi nag ne dañuy génne dañuy génne sa vidéo nag sëñ bi <laughs> loolu day wax ah, moo ko def de man de moom si jaaxal ah sëñ bi nag faaw nu la yëf yi daal moom mooy euh, soi-disant mm-hmm. parce que sëriñ yi ma xam mm-hmm. ñoom ñoo nga toog ci seen daara di jàngale. Mm. sëriñ yi ma xam. Mm. ñu ngi ñu ngi téye seen i taalibe. Mm. di leen xamal lu yàlla. ak di leen teg ci yoonu njub ngir yow mal xiyam ëllëg ñu mën a fekkente ak ñoom ci aljana yi aljana yi waaye nag sëriñ bi nga xam ne yow tamit yaa toog ci télé bi ak ci rajo bi wala boog ñu dëkk la micro ak caméra rek nga yaakaar ne xam-xam baa ngi fi di wax yoo xamante ni si tegoo ko fen di nettali loo xam ne ñëwagut suñu borom wala ne li ñëwagut nag man mi maa ko gérer son bopp yow yàlla lan la wax yonent bi. bi muy waxee ne ko. non dañu ko dañu ko yaa fi gën. Mhm. lépp lu ma sàkk yaa ya ya yaa ma leen gënal. waaw yow bi. Mhm. mais keroog bi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee eh, ca xare ba. Mhm. ñu gaañ ko fa. gaañ ñu mitti mitti mitti mitti mitti. tuur deretam def kuy mitti. xare boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax. dafa coono ko jàpp. yonent bi sallallahu alayhi daal ne ah xeet bu dem bay def nii seen seen seen seen seen seeni seeni seen seen seen hmm. yonent ah, xeet boobu day gisuma leen duñ gisuma leen aljana duñ dugg àjjana safara lañ jëm hmm. luy yàlla wax ndax yaa moom àjjana ci alquran hmm. su du Aali Imran xaw lan la ko yàlla wax ci aaya bi dañu ko ah bëgg naa la trop ah. ba nga gënal ma lu ma mën da hmm. naa la nag ci biir jaam yi def la nga nekk yonent salaay salaam hmm. bëgg naa la sopp naa la fonk naa la hmm. waaw defal naa la léppit nag daraja bu boo am mana bëgg naa la trop waaye nag sa nga yaram aljina jii nag ak safar safara jii nag wax dëgg yàlla yow euh, maa ko gérer nag amoo fa droit parole maa koy gérer nag. waaw waaw waaw sanga yaram ne ko nag ji. Hmm. ak safara ji. wax dëgg yàlla nag maa koy gérer nag. ah waaw ku dem maay. ku waxanteeg wa sallam. waaw kon tey gisuma ñii pour dugal be génn bi nag. Hmm. dëgg yàlla nag sanga nag bàyyi ko man. waaw ndegam yàlla moo wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ah. naam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa ràmm. Hmm. xam na circonstance yoo xam nag dangay bàyyi nag. Mhm. foofu moom yàlla la. waaw yàlla mii borom. Mhm. mi ngi mel na ca ba mu waxee te waxul incha allah yàlla bàyyi ko. xam nga mhm. ça veut yàlla dafa fiir ci dafa fiir ci nguuram. léegi nag yow mi nga xam ni Pape Alé nga baal ma. yow mi nga xam ni wax fa dëgg yàlla yaa ngi wooteeg daraja ak martaba ak wilaya di woote ne tollu nga fii ci yàlla bay xam li ñëw ëllëg. boo waxee mel ni mbir ne mbir ma day am te mbir ma antuwut ah ñii dañuy xam nag ni sama waa ji yow nag. Mhm. ban yàlla la nàkkal wala du yàlla bi yàlla bi nu xam ñun. Mhm. xanaa daa am beneen yàlla boo xam ni da lay nàkkal te yëgu na ko waaye yàlla bi la nàkkal beneen yàlla bi fi nekk nga xam ne moo fi nekk ba nuy tukki ba ba ñëwul boftu ba keroog ñuy àtte moo fi nekk. Mhm. gin a wax jooju. kon yow kon li war def mooy yow dañu war a xool ban yàlla nga doon wax. yàlla xamal na ma ni <laughs> te la ñuy wax. wallaahi wax nga dëgg de mu wan yàlla moo leen. waaw dañuy toog da naan suñu. suñu borom moo ma ko xamal. ba pare yàlla xamal na ma ni coupe bi ñëw Sénégal. ak waxin bi. waa léegi ñu dawal tuuti tooj say mbagg. waa léegi ñu waa ñu dawal tuuti. yàlla weddi coupe bi coupe bi ñëw. waaw <laughs> indi waaw moom ban yàlla lay wax. Ah. yàlla mi nu xam la wala ba daan beneen yàlla. yàlla mi nu xam de dina ko bi ah léegi nag yow mi nga xamante yàlla xamaloon na la nga xool yàlla bi la xamal. Ah, demal nga pañe ko. <laughs> te réew mi dafa am lu fiy dox. Hmm. nitu yàlla yaa ngi fi. wallaahi ay wàllu yàlla ah. kaamaa la fi nekk. nit mën naa doon sëriñ te du doon wàlliyu. Hmm. foo ngeen xam loolu. Hmm. mën ngaa doon sëriñ. mën ngaa doon sëriñ te doon doo doon xam nga lan la. ku dem jàng alquran hadis ñëw toog di la xamal yoonu yàlla. man ngaa nekk sëriñ te doo doon doon wàll loolu nag nit ñi di xam wàll yi mën naa nekk ci yow mën naa nekk ci mère mii mën naa nekk ci Pape Ali mii di kaf di foo di ree hmm. ay martaba la am na loolu ci yóbbu nag sëriñ bi nag mën naa jàng ba pare góorgóorlu ci njàngam loolu hmm. ñafe ca di màng ay guddeem ba yàlla takkal ko garaati wàlliyu mu doon sëriñ doon wàlliyu hmm. loolu dañ ko war di xam te di ko ràññee am ay Sénégal nag nekk na réew moo xam ni loo fi wax ci télé rajo na ko xam. ah surtout maa jamono yi. nga toog ci rajo ak télé ni nangam ji dina am. gis ku nekk ci néegu ñaxam ne nangam ji du am. moom yàlla am la koy wax yow nag nga wax ko sa yàlla lii Souleymane Faye di wax ku nekk ak sa yàlla <laughs> ñoom nag seen yàlla yooyu ñu ngi leen trahi. <laughs> Pape Alé. alors oui ko. alors ne ak euh, nu Dembeeg dëkk bi tëddee. voilà di wax ne l' actualité du trafic di wéyandi ba sur la quatre-vingt-neuf point sept pour ceux qui veulent passer sur la corniche ouest en provenance du côté des Mamelles et Q7 progresser vers la Cour suprême nar ko jaaree nag rond-point Place du Souvenir africain à foofu la mun na nekk amul jafe-jafe surtout nag boo leen du côté ministère de la santé. Euh, foofule mun ngeen di progresser tranquille bu dee nag rond point Seydi Nourou am na quelques ralentissements rawatina ñi nga ne ñooy wàcc sur la VDN bu dee sur les deux voies Mermoz foofule aussi faaw rek ngeen patienté ah, da ngeen di croiser ñi nga xam ne ñoo béy ko di la corniche ba tax na la patience s'impose intersection du relais foofule beaucoup de lenteur moo lay surtout ñi nga sur la VDN jaaree ko nag kaw pont Seydi Nourou intersection bi faaw rek ngeen patienté ay takk der ñoo fa nekk bloqué ñenn ñi ngir rek permettre ñeneen ñi aussi daal di mën circulation bu ko dépassé aussi aussi c'est pas compliqué seulement watu donc loolu rond point bu nekk foofu aussi mën ngeen di rek pour ñi nga xam ne aussi c'est dégagé pour le moment nanko jaajëf jaajëf euh, <laughs> waaw kii kan la <laughs> kii ku <laughs> sama waaja woon ku mu ñëw Sénégal moom mi subi kii moom daa yawa. damaa jaaxal quoi xarit moom daa yawaate. du ñëw. Eh? nga ne bi du ñëw. ba pare yow ngay subi la. Koungheul mii ngeen jàpp ne amul wér nga mën a taxaw ne coupe bi ñëw Sénégal coupe bi ñëw ngay wane sa si mère machine. ah dinaa nelaw ba yantoor. bu fekkee ni sa banque de la xooj ba mën a toll lu bëri nga bëgg a jotaat sa dooley poche mën a jublu ci projet yu bees ñëwal gaaw Ecobank. ñooñu ànd ak yow fexeel la noo remboursé sa prêt ni nga de mënee nga mën a jublu ci yeneen projet fii ba le 31 juillet Ecobank mën na jëndaat sa prêt te du la dikkee lu dul 5,5 pour cent dong bul xaar dara demal gaaw ci agence Ecobank bi la gën a jege wala nga woote ci 33 849 23 00 ak Ecobank yelloo nga noyyiwaat bu baax a baax. Ecobank la banque panafricaine li ñu leen jagleel dafa ànd ak tëralinam. Tawfekh Mbaye yëkkatil ma wooye wu mu tànn ci Serigne Saliou Tawfekh bi moo jugati Tawfekh Mbaye et le groupe Mbaye wayal ñoo woote guddi sargal Cheikh Béthio le février ca théâtre national Daniel Sorano pare yangook moomi kebe taalibe Serigne Saliou bi Aïda Fall madame Sy Penda Fall madame Diop PDG Serigne Saliou Mbaye borom USA Mohamed Nazir Sam borom Daaru Muxti Nafika madame Diouf soxna Mami wàllu madame Gueye Serigne Khadim Jinne le grand marabout Rimka Couture Modou délégué Amar Aji Samb Ndiaye cantakun bu Cheikh Béthio mujjee teral ci kaw suuf moo nekk noonu guddik sargal Cheikh Béthio Thioune benn cantakun du des taalibe Serigne Saliou yëpp ay daje le 18 février théâtre national Daniel Sorano way keneen ku dul ki ma way way ko war ko mën 1xBet yombal na seeni pari ak application bi nga xam ni ñépp mën nañ ko jëfandikoo ku am Android wala iPhone da ngeen fa fekk ay jeu yomb te it di ngeen mën a jouer virtuellement ci seen téléphone di ngeen mën a parier nu mu gën a gaawee ak 1xBet jouer dafay gën a yomb gën a neex mën ngeen a télécharger application 1xBet ci suñu site web 1xBet.sn su ngeen di créer seen compte pour la première fois na leer ni yéen a ngi jëfandikoo code promo 221 FM 1xBet ay pari ci noo ko bëggee pomi Lonase moo ko autorisé ko amul fukki at ak juróom-ñett mënoo na bokk ci ndigalu xalif général bu faydatu tijaaniya cheikh mouhamadul mahi cheikh ibrahima Niass xaadimul umma imam cheikh ahmed tidiane seydi aliou cissé imaamu ratib bu medina baye cheikh mouhamadul amin cheikh ibrahima Niass baba cheikh munhamina cheikh ibrahima Niass di président national bu jamiyatu ansaruddin cheikh abdourahman cheikh ibrahima Niass président comité d'organisation bu jamiyatu ansaruddin ak mbooleem taalibe maulana cheikh al islami muxadam ye kilifa diine yi ñoo di leen yëgal gàmmu ko Taïba Niassène édition 2022 ñu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko février ca Taïba Niassène yemook gane sib àdduna Mawlana Cheikh al Islam El a Ibrahima Niass Baye mi ngi ko daj dëpp lépp ñëpp màggal gane sib àdduna Cheikh al Islam képp kuy jullit war nga koo fuglu rawatina taalibe Baye ndax namal l'islam la looloo tax ca programme ba bu ñu xëyee jàng alxuraanul karim ba noppi 14h ñu daal di xewlu di h ñu amal cérémonie officielle bi ci teewaayu kilifa yi gannaaw julli ka tàkkusaan gi i borom gox yu fasantikoo bu googu gi di cheikh mouhamadul amin cheikh ibrahima Niass fas yéene waxtaane dund ak jaar-jaaru yonent yàlla mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mawlaana cheikh al ndax kenn lañu te duñu ñaar mbokk yi bés bee ngokk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko février ca tey ba ñeseen képp ko jullit di taalibe ñu ngi lay woo Mm. Mm, dellusiwaat nañu ci euh, test bi xam naa dañuy enchaîner rek dem ci deuxième partie bi xam naa ne nekk. Euh, partie boo xam ne guddul noonu bu ko defee ñu teewlu maire bi door a ñëw tënk mbir yi. waaw ngay interpeller état du Sénégal pour ñu taxaw la pour fay la sa xaalis. loolu laa bëgg a de loolu laa bëgg a damaa bëgg a état sénégalais nañ ma def ngir yàlla ak yonent te fay ma suma xaalis ndax wax na ma mu ne tant que Macky mu ngi dund du ma am dërëm. Eh, wax na ma mu ne tant moom mu ngi foofu te am na ay ministre bu koo xam ne aare xaritam ni ak tribunal waa tribunal yi ñu ko dimbal mu ne dem naa ba OFNAC dem na bu OFNAC ñetti yoon ñu ngi dugal ñaari yoon ñu ngi dugal dossier foofu suñu demee mu ne dossier amul. parce que dafa am foofu ay branlo. moom mu ne ci OFNAC la mu bokk moom ci boppam wax na mu ne ci OFNAC la mu bokk. moom foofu la bokk tamit. waaw mu ne moom foofu la mu nekk. kon yow foo mënti jaar moom daf lay kale parce que. am na moom moom ma carrément mu ne mënuma ko dara. pour commencer man bambara la. te xamul fii laa juddoo. je suis né le 27 neuvième mai 1938 à la Médina ici Angal Gumbo fii laa juddoo. d'accord yaru naa Mali. mais j'étais en service ici. j'étais maa ngi woon douane du Mali ici. ba ma jëlee kii bi ak suma feebar bi moo tax ma dem France installé pour ma mun a fekk. ak lu mu munti nekk je me considère comme Fran comme sénégalaise à part entière à part entière parce que je sais que sénégalaise là. ok je je je suis originelle du Mali ça je peux pas le mais je suis sénégalaise parce que je suis née ici et quand Abdou Diouf était au pouvoir avec Senghor je demandé à, à, comme sénégalaise. On m'a fait la nationalité sénégalaise, malgré que je suis née ici. Donc je vois pas pourquoi il me dit que je suis pas sénégalaise, je n'ai qu'à me foutre la, la je n'ai qu'à foutre la paix. Sinon ils vont pour euh, m'a menacé de mort maintes fois. Actuellement, je me ferme. J'ai même fait et tout pour, ne pas, parce que man kena mané que kirgi. Suma belle fille, mugi, mugi khariyal. Goudi man kena mané que faut presque. xanaa keneen ki eh, suma set bi ma jël léegi mu ñëw fii suma set yëpp ñu ngi eh, xaar yàlla ak fu mu ne nii man kenn maa nekk foofu de wóolu ma. yow jàpp nga ne à tout moment boo yëkkatee dossier man daal man daal duma ma génne sax soo laajee koñ bi dinañ la wax maire bi bu ñu gis ko xanaa mu dugg ci oto bi ñëw rek dem te c'est très rare am naa oto mais du ma génne ndax damaa ragal. Eh, mbarkay maa ngi entre day ak dund même dem naa Mali bo ñëw suma xel nii la. parce que yow jàpp nga ne tout moment ñu mën nañ la koj ndax xaalis bi. mun nañ ma parce que ñoom wax nañ mun na xaalis bi suma moytul dina dinañ lekk xaalis bi suma ginnaaw wax nañ ko. te moom moo ko wax keneen wax ko. mais ñi ma yaakaaroon yokk mu ne ñu ngi ko digal ñoom yëpp. ndeketoo dara mooy eh, lu mu juuf yaakaar nañ ko woon mu ne moom mu ne eh non maman tu auras ton argent am eh, sa xaalis dañ ko jotee nangam nangam. Ah. d' accord léegi yow soxna si euh, maanaam yow ak mère bi yéen a ànd lan nga mën a indi complément ci lu mu wax. li ma si mën a indi à la waaw li na maire bi. nekk na xaalisam dem nañu tribunal dem nañu OFNAC. mënuñu ko gis bu ñu demee tribunal xamuñu jékki-jékki nañ daal na maire bi def nañu jugement trois millions la fa am. affaire camions yi nag moom tamit moom maire bi bindoon ko dara na génne waxam si dossier yi si moom. mu continué ay na loxoom ci affaire. dugal na si nga fa am. tamit parce moom kon dafa jàppee maire bi nooy kay noonu la demee maître Abdou hmm. man mi jaabante naa fa ba sonn daan fa dem guddi daan fa dem bëccëg mu ne mu def ko ba xaalis bi génnee su du woon waa maire maire bi du yëg ne xaalisam si compte bi. ah xanaa mu bi mun a jot xaalisam parce que sonn na ci sonn na ci ak ay menaces si dul jeex. Chimère Diop euh, kon El Hadj Cheikh ñoo ko déggandoo. maire bi de lekk xaalisam yomb na. Hmm. waaye du reesee ci de. yaakaar naa ko nag de. dressé ci kër de mais nag euh, li ma wax rek mag am na ci âge boo xam ne boo fa tolloo. Hmm. yenn jëflante yi da ngay jiital sa njaboot. Hmm. doom bu góor mbaa doom bu jigéen. Hmm. mu lay liiral. naam sax intellectuel la mais mu lay ngay xam yenn yi les tenants et euh, aboutissants yi. comme sax nga mën di xam daal. mais nañ ko dimbale rek. kon nag euh, et puis affaire bi li ma si xaw a yéem mooy du du benn cas ñetti ñetti ñetti affaire la. Ah. ñetti tës ci biir tës. waa dëgg la de. parce que sànq yaa koy wax problème mu conteneur bi également c' est est c' extraordinaire. c' est gars des fois bu ñu gisee nga nekk mag moom dañ naan ah mooy loolu surtout mag bu ànd ak xale. Hmm. dañ lay ñeme daal dañ lay ñeme mais yàlla na yàlla taxawu rek. amiin yàlla na yàlla taxawu mais xam nga réew mi nag léegi article cinquante daa bëri ci mi de. <laughs> <laughs> mu def fête de l'artiste waaw daal suñu yaay booy mm. ko. Mm, amiin yàlla dimbali ko ba léppam lijjanti ko daal nag ku mën a jàppale nga jàppale ko. Mm-hmm. surtout ça ku mën a jàppale nga ko. parce que moom daal nee na liñ ko liñ ko proposé ay sept millions sur sur sur dix neuf mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko nangu sept millions nag ah man tey. Ah, depuis depuis ñaari at nee ñu ngi koy proposé sept millions mais nangu ko jël. kii dëkk bi fi xew lépp. Mm. ku wax sa maam sëy. wallaay yéeme na de. xam naa ne bi ñuy tës ba léegi liñ fi jàllale ci ay arnaque façon bu ne. Ah, dëkk bi noonu lay doxee léegi de. ndax xam nga dëkk bi nag léegi daa bëri ay directeurs yu amul kii. yu yu amul siège. ah ay <laughs> amuñu bureau ay directeurs amul bureau. bëri na ci réew bi de. wallaay nga dëgg de. xam nga gars yi des fois dañuy tooñ transitaires yi. Mm-hmm. des fois léegi. Mm-hmm. dañuy tooñ transitaires yi. Mm-hmm. des fois dañuy tooñ avocats yi. des fois dañuy tooñ tooñ tooñ tooñ. dafa bëri a ñoo xam ne usurpation de fonction dafa bëri ci réew mi léegi. Mm-hmm. bëri na rek. torop da ngay gis koo xam ne DG lañ koy wooye amul bureau te doo gis société am waaye DG la. ca amul bureau amul société waaye DG la. ñëpp DG lañ koy woowee. kooku nag bu mu dox ci DG. boo tasee moom mu mu def mu def la ko. nga gis koo xamante ni si courtier la ci diggante maanaam client bi ak transitaire bi. Mm-hmm. mais moom dem na ba transitaire lañ koy woowee transitaire bu mag bi. te courtier la. toogul école jàng transit xamul nu transit demee mais dem na ba dugg ci biir transitaire yi ba min transit bi nga xam ne yenn documents yi ci loxoom lañ koy teg mooy daw dem fay mooy daw indi tëg dugal fii génnee mm-hmm. mm-hmm. bu conteneur bi génnee moom mooy yore papier bi nga xam ne moom la ñuy wane ne conteneur bi pour mu génn yooyu yëpp da koy yor dem ba miin job bi ba moom day dem ba gëm ni moom transitaire la di woy moom transitaire loolu nag moo daal yenn sëriñ si yi ci réew mi wallaay ay courtier la ñuy doon. courtier sëriñ. courtier sëriñ la maanaam yow baka yokoon wàllu yàlla nga bu nekk ca Casamance. Mhm. mbaa nekk ba Tambacounda. Mhm. waaye man man maay sa courtier. man danaa fexe wut sama garam bu bu toog dakaar gii xool benn Cheikh gi bëgg ba xool benn Bougane gi dañu xool benn Simer Diop. Mhm. ñu wax ma seeni problème man leen naa fanaanoog yéen. bu guddi gi ah, bu timis bi maasee ma woo la yow naan ko ba ko yow yaa nga ca yaa nga ca. Mhm. Casamance. wala yaa nga ca Tambacounda. nga ni ma mbiri mbiri Semer nii lay demee mbiri Bougane nii lay demee mbiri Cheikh Gueye nii lay demee ma woo leen tax damay xam ne yow wàllu yàlla. Mhm. ma wax leen ko ñu dem gis ko. léegi dañ lay gëm. ah dañ lay gëm di. Ah, ñooñu nag ñoo naan la coupe bi dana ñëw ñoo naan la coupe bi ñëw. mais ka xam ne. coupe bi day ñëw kooku du wax. ko kenn du ko gis. déedéet coupe bi day ñëw. Mm-hmm. yow mi nekk Tambacounda. Mm-hmm. ma doon sa courtier man fii ci Dakar. Mm-hmm. yow rek nga naan ma coupe bi day ñëw te lépp loo ma dama koy gis te bi day ñëw. te coupe bi dafa war ñëw Sénégal te day ñëw te loolu la la la nitu yàlla boobu wax dëgg la. waaye nitu yàlla boobu doo ko wax rek waaye wax ko ci télé rajo. yow nag yow Cheikh Sarr yaa am fit ci rajo toog ci rajo bi ne coupe bi day ñëw. mais wàllu yàlla boobu bu la yàlla bi lay déglu moom bu la pesé day xam ne yow da nga oyof tooy mais noo demee ba xam ne coupe bi day ñëw. ndeke wàllu bi nekk Tambacounda moo la ko dee. te wàllu bi nekk Tambacounda am na beneen wàllu bu nekk ci diiru boo xam ne moo ko ëpp degré day ñaan ne coupe bi du ñëw. coupe bi du ñëw su boobaa yow. Mm-hmm. boo fa ja mën ngaa weddi sa bopp weddi kii. loolu mooy indi courtier yi rek maanaam ñu lay woowee menn mbir di la ko woowee di la ko woowee ba mbir mi nga bëgg ko dëggal ci sa bopp. usurpation de fonction yi bu bëri ci réew kon nag nañ def attention alors euh, Cheikh dix jot na. a ah. euh, alaaji euh, Simon. Mhm. Pierre Faye. Mhm. egsi na ñaan def ñaan ñu ñu tëj. ah jiit ñaan ñu ñaan rek. yàlla mhm. yàlla defal nu sakk ak sutura. amiin may ñu mujj gu rafet. amiin. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa jërëjëf ba suba ak jàmm.